kan kii Balla Gaye Balla Gaye nga faral Balla Balla kan nga faral Balla Gaye bu leen mbay Lac Rose ak Lac Rose Balla kase guñ jeece Balla kase guñ jeece Balla Gaye kase <laughs> Gabriel.